la parole a la presse. gis nañu nak après réaction yi nga xamantene journaliste journalistes yi am nañ ko mu nekk juste benn parenthèse boo xamantene il fallait woon que ma indi ko après yenn daal ci ay euh, personnalité yu nekkoon bi tribunal ñoom ñoo ñëw surtout les avocats wax ak ñi nga xamantene ne euh, moom mooy euh, la presse maa ngi la doon laaj tey jii violence politique bi est-ce que nekkul di am li nga xamantene ne moom mooy des répercussions ba journalistes yi sax tey jii indexé nañ leen ne leen carrément da ngeen far et que je pense que ñun en tant que jeune reporter en tant que jour journaliste lépp li nga xamante ne naam ñi ngi koy def suñu liggéey dañ koy teg ci dëgg ak yoon jagleel ko à cette population la. non membre continuité la rek ni ñu nekkee woon si nguuru Macky Sall. Mhm. jëloon xaaju presse yëpp di leen tëj. di leen wax musiba di diffamé di yëkkati ay kàddu ñaaw di ko jëf euh, di ko jëflante wala di ñu ko wax ñooñu dañoo foog ne loolu moo mooy continuer en fait euh, problème mu nguuru Macky Sall ak presse bi nga xam ne dañu jub. jubal jubbanti ñoom ñooñu mësuñu lay arrangé ndaxte ñooñu mhm. dëgg rek la ñuy wax moo tax boo si xoolee euh, bu audience amee ñii di génn di relater li nga xam ne moo nekkoon si biir mhm. loolu du leen neex maintenant nag leen lañ leen yoo xam ne heure récréation bi jeex na tey dañoo nekk si réew moo xam ne buñ ko buñ ko bëggee buñ ko bëggul ne mbir yi dafay changé mhm. loolu mooy réalité bi beneen bi nag bon euh, ku sa gémmiñ moom di toj moom wala sa gémmiñ moom di génnee deret yow mënoo wax jàmm te loolu moo leen loolu moo leen dal loolu lañ ci amoon ñëpp xam ne Bah Diakhaté yoon bu doxalee na mu ca war a doxalee da koy daan léegi nag li ñu ci mënti am mooy jéem a jéem a teg pression maintenant te kenn ku nekk muy jël ay responsabilité défendre boppam surtout nag bu ñu nekkee si réew moo xam ne am na ñoo xam ne bëgguñu li ñuy waxat wala arrangé wu leen mais l' objectif mooy ndax saa su ne taskatu xibaar yi dinañ taxaw ni ñu war a taxaw mooy joxe l' formation juste et vrai bu nekkee ne loolu moo am amul luñ si ragal. commando laataa jàll si beneen ponk que la violence politique mi ngi di am euh, des proportions inquiétantes à tel point de s'attaquer tay à la presse et surtout aux journalistes yi nga xamante ñi ngi ci terrain bi. je pense que il est temps que aussi tous ces actes là ñu ñu ñu ñu ñu arrêter ko quoi parce que tay bu nekké réew tollu na fo xamante ñu am ay presse ñu presse bi pro pouvoir lañ presse bi pro opposant c'est très dangereux. Madame waru Ag, tu te politiciens aussi war nañ bàyyi di stigmatiser les journalistes parce que les journalistes c'est un rôle lañuy def quel que soit lolé leen mën c'est contester un rôle lañuy def mais so que mbir mi dem bi ag à un degré. à un degré un degré mais tu da ngay taal télévision nga xam ne télévision yi fii lañ bokk ay sont de télévision de l'opposition nga tal ay yenn télévision wala seen site internet nga jàpp site internet yi ci pouvoir lañ bokk wala nga déglu gars yi rarement ngay gis ay journalistes yoo xamante ne dañuy équidistance di wax dëgg mhm. sànq maa ngi dégg jigal lu mu wax mais boo ko dégloo da ngay xam ne kii li muy wax ci dëgg bi la jaar parce que il journaliste aussi quoi qu'on puisse dire da ngay jaar ci digg bi ñu xam ne carrément yow àndoo kenn faroo kenn mais su nekkee yaa ngi def sa chronique chronique bi day tangente kese fii kese la jëm yow gouvernement bi kese ngay saltel ñoo xamante ne def nañ fi 45 jours gis nga acte yu ñu def gis nga réalisation réalisation yu def yow réalisation yu def yow ngay journaliste. Mhm. ñu tay génnee plus de 700 7125 nit dans la fonction publique mais loolu c'est quelque chose à saluer 7125 personnes ñaata milliards la bokoy xayma un an ñaata milliards la ci alalu àdduna mais milliards yoy ñaata hôpital la mun créer don fay plus de 12 ans ay nit ño xamante ni liggéeyuñu mon cher. mais loolu tay ñaata centre de santé la wara a créer. dans un an. Mhm. tay sept lolu loolu kese nee naa gouvernement bi bu fi yewoon sax mu neex. Mhm. parce que lu dem ci 7125 personnes yoo xamante ne plus de 12 ans calculer 12 ans Macky Sall. Mhm. nga calculer ñooñu salaire indemnité indemnité de risque ba pare le directeur du solde nee na am na xamante double salaire lañ doon double salaire mais c'est très dangereux te yéen journalistes yi am amu leen sax subvention de la presse amu leen dara même tey yéen bu ngeen amee problème sax bu ngeen demee hôpital yi da ngeen am problème te waroon ngeen am benn couverture maladie universitaire. Mhm. gars yi jàppale couverture maladie universelle nga xam ne journaliste site internet wala télévision bu amé problème semi ñu couvrir la jàppale la mais tay bu nekkee politicien chez lobby ñu far la ministre ñu far la DG wala directeur de banque wala directeur de société wala nga nekk ci gouvernement bi ngay am ñetti salaire ñeenti salaire gouvernement bi ñëw dindi lolu ba mu set teg ko de côté publier chiffre ne kat carrément directeur du solde génn wax barki démb dañu jékki-jékki ñu envoyer ñu message ñu ñi nga xamante peut-être i solde lañ nekk ñu ne ñu ya un problème tay la déglu information nekkati gars gaay ñoko saboté woon logiciel bi la gars yi commencé saboté bu ñu demee tey ba ay de état nekkoon fii un régime de Macky Sall ñu dem ba commencé saboté ay logiciel mais c' est très dangereux bu ñu commencé attaqué ay logiciel di jéem a saboté ba ñu dem ba directeur de solde génn def ay révélation mm-hmm. loolu l'heure ay grave au Sénégal te lii nii askanu Sénégal dañoo war a def booloo doon benn ànd jàppale ce gouvernement la encouragé leen pour lii ñu dem jusqu'au bout man loolu laa gëm coupable yi ñu traduire leen en justice ñu arrêter leen. Daouda digal dañuy continuer ci actualité bi ñing ko doon wax dañ ci waxat Doro envoyé nañ ko en prison ki nga xamantene mom moy le juge du troisième cabinet euh, mom mo jël euh, décision bi ni euh, boobu ba tey nag ñi ngi doon waxtaan vendredi bi passé dafa defon li nga xamantene ne moy malaise ñu indiwaat mbir bi ba tey ci altiné bi waye décision bi génn na Doro Gueye ko fele nga xamantene ne moy prison. bon. Euh, Moi, présent prison nañ premier euh, premier cabinet deuxième cabinet. Mhm. troisième cabinet ni ma waxé né borom xol Je mhm. euh, bu dina mhm. wayé dina xol xam nga Mamour. Eh, eh, nekk des gens yo xamné xamuñu un bon journal. len mission. lan si ban base lañ leen di joxee ñooñu ñu nekk des chargés de mission xam nga mës naa dem Touba. waaw euh, euh, waa ji euh, ki nga xam ne si wàllum inondation bi màggal. Mhm. waa ji jàngul xaw ma fan la jëlee ay diplôme mais kooku dafa terroriser waa koñ ba. si lan daaw si si nekkate link rek bi mu am ak ministre Antoine Diome état ñu ne la homme d'affaires bi. homme affaire maanaam ñooñu sax ñooñu lu ñu leen di wax boo waxee ñu ne la homme affaire bee andi fi mbir mi. li may wax xaw ndax Moustapha a ngi koy fàttali ku baax a baax benn waay la mais dafa terroriser en fait da ngay gis si réew quelqu'un koo xam ne xamoo moom mooy kan xamoo fan la jógee un bon jour moom mu ñëw nekk millionnaire milliardaire nga déggal lan nga déggaat si moom ñu ne la mooy chargé de mission. nga déggaat si moom ne ay suuf yoo xam ne si anam gi nga xam ne noonu la ñuy joxee suuf tey anam googu yëpp dañ ko teggi mhm. ñoom am beneen méthode boo xam ne moom la ñuy utiliser mooy nit ki kat nguur gi wala Macky Sall moo lay jox ay suuf. boo jaay waaw boo jaayee suuf si boo boo boo jaayee suuf si. Mhm. boo boo boo boo jaayee suuf si léegi nga financé eh, financé si sa yenn activité euh, un Dora Gueye qui n'est pas koo xam ne xamuñu waajuram si ay mandum pétrole. ko xam xamuñu ne wajuram da ko fee bayal ay ay bien tay koku ngay xey un bon jour ñu ne la le gars c'est un milliardaire kooku ngay ñëw dégg ñu ne le gars c'est un millionnaire kooku ngay dégg ne tay askan wi ñëpp naan ko xippil xol xippil xol tay su nekkoon milliardaire dina am problème trouver un consensus avec la plaignante ji nga ci nga man waxew ma fo xam nga. waaw réew mi. Mhm. dañuy fekk nit ko xam wa Macky Sall ak Abdoulaye Wade dañoo dañoo togn xam lu ñu tooñe mhm. dañoo créer ay milliardaires dañoo créer des voleurs dañoo créer des gens yoo xam ne waruñu woon tekki dara ci réew ñooñee ñu tekki et que ñooñu ñoo ëpp lu ñu nga xam ne moom la ñu def saal boulot xam nga li ma bëgg a xam. Mhm. mooy Dora xaalis bi nga xam ne moom lañ ko doon jox bu jaayee ba pare xaalis boobu ça sert à ndax xaalis boobu. des affaires secrètes. non ndax xaalis enquête bi. ndax xaalis boobu. Mhm. point d'interrogation ndax xaalis boobu daaw ñu ci jël ay nervi ndax xaalis boobu daaw ñu ci recruter ay activistes ñuy saaga nit yi ndax xaalis boobu noonu daaw ñu ci jël ay yeneen xale pour ñuy taal yi pono feneen ak feneen ndax xaalis boobu noonu daaw ñu ci jël ndax xaalis boobu daaw ñu ci fay ay nit pour ñu jàpp Pape Abdoulaye Touré di dóor nit yi ndax xaalis boobu noonu lan xaalis boobu xaalis boobu ndaxte bu ñu waxee mbirum secret rek en dafa am ñoo xam ne ñoo yenu maanaa pour jaay am ñoo xam ne tey ñoom ñoo war a def seeni mbir membre te wax naa leen ko waxaat leen ko ne leen réew mi dugal nañ fi 45 milliards yoo xam ne ay armes lañ ko jëndoon armes yooyu ba tey kenn xamul fan la féete tey ab benn Doro géey la boo xam ne te ni ma leen ko waxee na enquête yi continuer mënul mënul mbiri mënul yomb jëngal nga le cas de Bah Diakhaté le cas de Doro Gueye mhm. di nga boo continuer nga yaatal sa enquête. l'arbre la boo continuer hmm. dina am leneen ak leneen ak leneen leneen ak leneen loo xam ne dafa war a feeñ et ni ñu koy waxee et ces mêmes yooyu noonu ñoom ñooy ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci réew mi. Hmm. ñoom ñoo ñee tey ñi nga xam ne ñoo bëgg a li nga xam ne moo di réew mi ji li ma la koy waxee ne mooy ñooñu. Hmm. waruñoo continuer beneen bi nag dañuy rafetlu justice ci ni mu doxee tey Abdou Gueye buñ ko bàyyi woon moom ak ki mu seqal problème rek ñu waxtaan dem. c'est facile maintenant au-delà de a Gueye Macky Sall mi nga xam ne moom la si tudd. effectivement et tey ndax Macky sàll day bàyyi booyam da koy bàyyi mu dem kaso xippi xool foofu wala Macky Sall day ñëw da koy ñëw jàppale léegi le problème à nekk mooy tey man damaa gëm ne Macky Sall fu mu mënti nekk dañ ko war a woowu ji mu ñëw. ndaxte lii nga xam ne Doro Gueye moom la ca wax ne Macky moo ko doon jaayloo. daaw de yaa ngi doon wax Macky da leen linja. en fait non non ji nga ñooñu moom patron de presse yi la linja. non non ñooñu patron de presse yi moom. ñoom tamit kenn si boole. non opposition bu bees bi la Macky Sall linja mais ñii moom xam nga wax ji mooy lan. Hmm. Euh, da leen tayle ñee da leen linja ñii moom da leen tayle. dalen leen tayale fii dem Maroc leg nak wax ci moy au delà ci li nga xamne moy mooy Doro mom lañ koy wax lépp mu tudd ci turu Macky Sall man dama gëm ne Macky fu mu nek dañ ko woo wara a ji mu ñëw enquête bi dafa wara continuer ñu xam Doro Gueye xaalis bi mu doon jël lan la doon jëriñ. lan moo nekkoon si si diggante 2021 ba tay dafa bari ño xamne ay nervi lañ. 2021 ba 2024 dafa bëri si ñoo xam ne ñoo doon recruter ay nervi diggante 2021 ba 2024 dafa bëri ñoo xam ne ñoo doon jël xaalis di di di wax nit yi nañu saaga diw nañu saaga diw nañu saaga diw diggante 2021 ba tey bëri na si ñoo xam ne dañoo dee wala ñoo xam ne kidnappé nañ wala ñoo xam ne dund nañ ay jafe-jafe et ce sont ces hommes d'affaires yi nga xam ne moom la ñu wax nii ñoom ñoo tax ñooñu dundoo affaire mm-hmm. ndaxte mën naa gëm ne un Doro gay Macky Sall lan la koy doyee dëgg la doyewu ko si xam-xam xippi yeeg xippi xool mooy lan lan la ñuy xippi lu ñuy xool <laughs> en amul lan la afet ba te beneen bi mooy <laughs> te yéen xam ngeen bu baax a baax xam ngeen bu baax a baax wax naa ko waxaat ko ne la de 2012 jusqu'à 2024 amuñu woon président li ñu amoon mooy ab chef de gang ay mm. Doro Gueye dafa bokkoon si li nga xam ne moo di gang bi te ñëpp xam nañ àndum bandi fin bi nan lay mujjee kenn kenn ki day jóg teele moroom Macky nag da leen fay teele dem <laughs> léegi ne boo jàppee Doro dina la wax Macky Sall si boppam lan la ko doon defloo. ndax mënul yomb. Macky Sall warul mën a di toogi fee dafa war a ñëw. waay commando. <laughs> Ah, <laughs> gis nañu euh, <laughs> ce qui s'est passé tey. Mhm. mu waroon euh, jàkkaarloo ak juge du troisième cabinet bi. Mhm. vendredi bi def na malaise moo tax ñu indi mbir bi tey yóbbu nañ ko prison ban appréciation ak ban analyse ngay def depuis le début euh, de ce problème bi nga xamante ne tey jii mu ngi sur la toile publique. xam nga boo xoolee mbir mi mbiru Sénégal dafa mel ni benn association de malfaiteurs bu fi nekkoon am seen beneen gang bien organisé teg ku nekk am nga sa mission booy jouer, ci ñoom Farba am na benn mission bu muy joué euh, ministre de la justice bi amoon na mission bu jouer. doon joué Doro amoon na mission. bu jouer. doon l'ancien ministre de la justice. Euh, Ismaël euh, Ismaïla Madior Ismaïla Madior le grand professeur professeur L29 L30 laa ko tuddee moom nga xamante ne ci ay manipulation lay nekk toujours di wax ku wax mu attaqué. ki nga xamante aussi mooy Antoine amoon na benn mission bu mu doon joué Doro aussi am na benn mission bu muy joué maanaam ak seen activistes nga xamante ne ku wax ñu saaga la maanaam ñoom dañoo partagé Sénégal teg ko charme nag xool ñuy éliminer kii ñu ñuy rey mais tey liñ ci répartition des rôles quoi ku nekk kii mooy def sale boulot bi kii mooy maanaam on était dans un gang bien organisé gang lu ma wax mafia gang bu nekkee wàllu luubal ñi ñoo ko assuré bu nekkee gars yi di leen toroxal commissaires yi lañ fa teg bu que le procureur yor nañ ko walu sen juge premier cabinet yor oh, il était très bien organisé japp ay nit ñi sans dara di créer sénégalais mais tay le cas de Doro Gueye Doro piste la pour man piste la bo xamante tay état bi le procureur de la république bu nekkee moom la ñu fi war a bàyyi wala le ministre de la justice wala les nouveaux juges à travers Doro mën nañu am lu bëree bëri ci moom. maanaam piste la léegi nag li nekk foofu laay ñëw léegi foofu laay ñëw parce que piste la quand je dis piste la. tey pour ku jàpp ku mel ni dooro teg ko kooku mën nga am lu ne parce que Doro ku mu njëkk tudd ci enquête bi mooy Macky Sall <laughs> Macky mooy le grand boss à part Macky dégg nañ ci ay hommes d'affaires dégg nañ ci ay yeneen milliardaires yi mu tudd kon tey Doro affaire Doro Euh, c'est un forêt bo xamantene ne lu lu ci manam doro forêt la mm. forêt classée bu lendeum moy doro d'abord mais bo xuusee ci forêt bi nak di nga fa fekkat yenen gaynde yenen panthère parce que tay bu ne khalis mission secrète la don def sank euh, jigal mu ko don wax Sénégal la fois passée y 45 milliards d'armes. armes la ñu jël suñu compre mm-hmm. koy waroon nañ topp l'enquête bi pour xool où sont les responsables ñu ne la fan lañ ko waxtaanee biir palais mais loolu lan moo ko gën nekk banditisme ba pare barke démb aussi maa ngi dégg démb euh, ki nga xamante ne mooy Sonko ñu ne plus de cent trente passeport diplomatique yoo xamante ne tey. Mhm. ay nga baal ma ci terme bi quoi ay xuusmaa ñàpp lañ koy jox na ko Sénégalais baal terme yi. ay xale yu jigéen. Mhm. yoo xamante ne dara ñu jël leen di leen jox ay passeport diplomatique ñu dem ay Dubaï. nga jël ay ay nit ñoo xamante ne dañuy saaga barke démb am na benn activiste gouvernement Macky Sall. Californie je cite son nom ñu dem beneen am passeport diplomatique là où ay borom xam-xam ay intellectuels de haut niveau bu ñu naree tukki sax du ñu tout a tukki. du ñu ay intellectuels de haut niveau ay professeurs universitaires ay médecins di am problème pour tukki passeport simple. tey bu ñu demee gis ay ay religieux am sax ci ay religieux ay hommes d'affaires yoo xamante ne leen di jox passeport diplomatique maanaam tey réew mi dafa toll foo xamante ne war nañ sedd segg ñan ñoo a am passeport diplomatique. ak ñan ñoo waru am passeport diplomatique daa am sama benn grand. bu ne ma jamono nguuru Ablaye Wade daa am benn waaju Mara mooy homme d'affaires yooyu mu dem gis Ablaye Wade Mara la mu ñëw ne ko góor gi yow dama lay jàppale góor gi ne ko waaw yaa ngi may jàppale kañ gis naa liggéey bi ngay rafet mu ne ko xam nga lan laa bëgg Ablaye Wade ne ko loo bëgg mu ne ko passeport diplomatique Ablaye Wade ne ko ndax tu es mu ne ko luy loolu. mu loolu léegi looy mu ne ko yow looy ut passeport diplomatique te yow xamoo mooy diplomatie. mu ne ko ah damay dégg ñu ne boo ko amee da ngay tukki dem fu la neex mu ne ko ok mu ne looy liggéey ban service ngay liggéey mu ne luy loolu yow xam amoo service amoo qualification professionnelle yow bu ñu la laajee soit da nga naan marabu point wala doomu diw point. wala diw point maanaam yow. lu la mën a permettre nga am passeport diplomatique nga ñëw rek sol say bu yooyu ne jàppale naa la. léegi ku sol grand bu yore rek dañu jàppale naa la dañu laa war a jox passeport diplomatique réew mi il est temps que ñu régler réew mi. mais lan mooy expliquer tey jii nii personnalité yi nga xamante ne nee nañu octroyé nañ leen euh, tous ces passeports là. mais parce que c' est banditisme bien organisé et la promotion de la médiocrité loolu kese la amut leneen am na loo may defal sant naa la benn saal buloo nga saagal ma jigaal wala nga ne ko mun naa laa defal li nga ko ñëpp gis ko ñu woo la xaalis Kaliphone taxaw na fi temps yële passé ne kii moo ko doon fay. wax benn ministre ñu doon fay ay salaire te ci benn laay bu ñu demee ba ay activistes ñu leen di fay ay salaire l'heure est grave au Sénégal bu nekkee da ngay dem bi ànd ak gouvernement ñu lay fay salaire pour nga saaga nga nekk tiktoker nga nekk influenceur même tey enquête boobu dañu ko war a topp topp euh, le gars seen influenceur boobu doon wax ne am na benn ministre bu doon fay les tiktokers ñuy saaga sénégalais yi même loolu état bi di cee war a jóg dugg ci tiktok bi dugg ci YouTube bi Facebook bi ci télé yi xool ñi nga xamantene Des tey dañuy saaga nit ñi di diffamer nit ñi di sosal nit ñi te teguñ ko fenn ñu leen di fay xaalis ñu leen di bàyyi ñuy jàll di dem loolu mënuñ euh, di gouverner tant que ñu ngi bàyyi gars yi laissé aller là gouvernement bi aura des peines perdues il est temps qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes le cas de Doro c'est un forêt qui casse tout na état bi